kii boo gisee nga xam ne maanaam suñu njaboot Thione Seck la bokk te gis tey jii nii match bi la si rendre kii di suñu papa Thione Seck noo gisee initiative boobu. sant nañ Serigne Touba alhamdulilahi rabbil alamin di gën a ñaaxaat sunu bopp ndax papa Thione tey bàyyiwu fi bàyyiwu fi rek la fi bàyyi. bu amoon neneen nu mu taxawee ci musique sénégalaise bi duñ ko xalaat sax ba koy rendre hommage waaw ndokk nag ba ñu ko nangulee xam ka mu doonoon di ko ñaanal suñu borom yëgal jéggal ko te xare ko àjjanay firdawsi barke maam Sharafal di wax mention spéciale à Djibi et Baxaw waa Dabrans ñu ngi leen di ñaanal ñoom it jàmm parce que c'est pas c'est pas facile quoi à chaque fois ñu organiser di di di di innover macha allah daal wax dëgg yàlla sant nañ yàlla bu baax alhamdulilah. rappeur encore une fois ñooy ni gañewaat waaw non comme tey ren coon lañ ko tuddee Papa John te Papa John mbalax man la ñoom rappeurs yi ñu ne bàyyi ñu may leen ko rek ñu mayaat leen ko rek yàlla baax na te ñoom dañ ciy sonn quoi moo tax ñu la ni may 1 0 xam nga ne mooy loolu rendez-vous demee incha allah nga ne ko suba suba non léegi tey si guddi laay départ pare naa <laughs> pare lu xaw Palmarin maa ngi woon toog VIP ah, yaa ngi woon nekk sama la xaw naa taaj tuuti naa premier mi-temps laa ñëw xale xale yi topp ma ndiiraan xale yi di naaw ku ne naaw ma nga ñu di naaw. parce que yaa xew. macha allah yaa xew eh, mais Ousseyn noo gisee tey match bi. rëppal dama uh-huh. waaw ma leen fekkoon te nu ko defatee. naa daal kaf ñu reetaan ambiance daal macha allah. mais doomu ndey remplacé na la ki muy Ousseyn Keita. daga juum. lu tax lool. Eh, man la Ousseyn Keita. da Pawlish Mbaye damaa Pawlish Mbaye eh, dama lay sotti ndox de. bokkuñu sant yàlla daal mas bi daal neex na macha allah. waaye tey tam ma gënoon teew tey xeex moom fii woon. kon noonu la xeex moom fii woon moo tax ma a ñëw. kon noonu la bëggoon nokk fii. sot soow. sot soow. mais di nga fayu. dinaa fayu xam naa xam naa gisuma la. xam naa gisuma problème bay gis naa la te ma laa sotti ndox mi nag am sa ndox may <laughs> loo xam ne tamit il faut que ñu xaw a euh, kii loo xam ne suñu papa Thione Seck tey di ñëw ñëpp di rendre hommage doo gisee loolu maa ngi koy ñaan yàlla fi mu jëm ni yàlla gi a fu mu jógee mu nekk ni yàlla gën a fu mu jógee euh, si bakk seen na Mohamed sang sange di ko ñaanal di ko wax yàlla ko euh, seen naa Mohamed teeru si bakk seen naa Mohamed jërëjëf yàlla en nit bu xewee lu ko neex lay def nit bu xewee Ousmane Thiam dogo maago nit bu xewee lu ko neex lay def li sant yàlla la ak xew yàlla suturaal ma ma gën a xew nit bu xewee lu ko neex lay def. xew moo xew lool. te te. te def te doo dem loolu xew la. tey da ngaa ñëw ànd ak Lo ku bu ko tey. léegi ngeen saago ko léegi ngeen saago ko waaye ngeen def ko lu ñaaw waaye xew ma lu ne ci àddina. Pawlish tey nga ñëw ànd ak Ndeye Lo. yéen ñëpp eh? xew xew la da ngay puus da ngay da ngay da ngay puus attention. mais waaye ah. Pawlish nit jërëjëf nit bu xewee lu ko neex lay def loolu sant yàlla laa xew yàlla def sutura xew li na. dama tax mu def li ma dama def ko nit bu na xewi na xewi na. tey nga sa yaram tàng. non góor laa njëkk def. mbaa li nga góorlu xeeboo. non ma ko man góor rek laay. faral di dégg nawetaan ñu naan suñu góor bii. dang jangee ba sa raay ba ñii di raay. waa ñii di raay ñii di fóon waaye bii góor moom maam jaaraay raay maam jaaraay fóon. ah maa ngi leen ci. eh bal maam jaare di raay di fóon rek eh, nga yëg tey dama kontaan vraiment kontaan naa sama xol sedd na parce que lii fola ree la macha allah kontaan naa moom sama xol sedd na vraiment. tey nga yëg bi nga ñëwee fekk ñuy rendre hommage suñu papa muy papa Thione. papa Thione yal na ko yàlla yërëm taxaare ko na bàyyi waari Seck yal na ko yàlla yërëm taxaare ko na wax dëgg fa yàlla tey kontaan nañ trop suñu yaram daw na suñu xol fees na parce que papa Thione monument la monument musique sénégalais. kooku kenn du ko dindi kooku monument la ci musique sénégalais parce que Seydina Mohamed ko yàlla ba cet ñu koy laan hommage wax dëgg fa yàlla ñëpp teew wax dëgg fa yàlla kontaan nañ moom vraiment yàlla ko yàlla euh, euh, oyofal suuf ci kawam ci kàttu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñu gis ne li nga xam ne moo di sport fola ak ñu gis temps yi mu metti lool violence bi bëri lool naka nga gisee loolu waaw xam ne sport moom bu amee violence rek nekkatul sport loolu moom foo ak la comme boo xoolee tey suñu football bi suñu match bi jàmm la fo ak ree amul amul xuloo amul xeex ku ci gaañ nag sa rakk nga gaañ wala sa mag wala sa mbokk wala sa wala sa wala sa wala sa doom bàjjen waay. sa beaucoup. mais kontaan naa kontaan naa trop. yàlla na yàlla defal jàmm merci beaucoup. surtout waay. Pawlish tey sa jabar nga àndal waroo def lii. mais parce que je suis fatigué. putain de merde mais yàlla mais yàlla wàññil. mais yàlla wàññil tuuti wàññil. yaa ñaan yàlla xew nag. yàlla wàññil tuuti parce que lii lii lii c'est trop ngeen jël jël ñeneen ñi ngir nga lan nga yëg bala ñoo mer dimbali leen ma ngir yàlla ngeen dem jël ñeneen. parce que ñu ngi siisu ñeneen ñi mais dañuy wax ak yow ba nga waxoon ne da ngay ànd barke yàlla ñëw na. lan ngi ca toog parce que sangu piscine tey. lan nga yëg tey bi nga ñëwee fekk ñuy rendre hommage sa papa sa xarit muy papa Thione. sant yàlla la gërëm suñu borom ñaan yàlla yàlla suturaal ma bañ a xeewi parce que lii su ma xeewee du ma ko am ana yeneen artistes yu xeew mag jëlalu leen maa ngi waa rek jël jël mel nii kon sant yàlla la. mais Waly la koy wax. sa sa xool dafa sedd ci moom bu ñëwee équipe moom bu ñëwee équipe bi day am jëmm. terrain bi day am jëmm dëkk ñëppay kontaan wax leen rek Waly nag mooy le boobu di senteur. léegi yaa ngi pare perte si Saalum. bañ a am. yeneen si amatul. ni ñu amee mais Gambie Gambie aussi. ah moom Gambie moom Sénégal lépp lañu annulé. wa kenn du dëggaat waaye da ngay dëgg mais nag yéen ay yéen ay dul kan ngeen sonn naa nag mais dama jël ay Balla Gaye affaire yooyu dama jël ay Balla Gaye. peut-être da mét méjo méjo méjo méjo wàññil waay méjo. yëkkati sama loxo bi day métti. yëkkati. delloo ziar bu baax. maa ngi ci jàmm. te maa ngi sant bu baax. loo waaw gis nga de tey dañoo ñëw ñàkk si en ah Kafoore ak suñu mbokku rappeur maa nii en mu ñu def ko ci fair play gagné leen instant bi ñoo ñu mën a 1-0 mais dañuy ñëw. instant yi door nañ dool tamit dañuy door a mi-temps jeexagul nay metti rek du jeex. xaar ñaata si jaww. non léegi rek léegi mu dugal deux bi mu jeex. lan ngay